ouverture des classes jot na xale yi ñi ngi jàngi depuis le 12 novembre classe yëpp ñi ngi fonctionner fii lii lycée Cheikh Omar wu Tall am nañu ay élèves yu bees ay élèves seconde ay élèves terminale ak euh, yu première ñoom ñëpp ñi ngi jàng si léegi gaa ñi ngi ñëw correctement bu savez que période bi période pandémie bi ba tey Covid mi ngi fi am na ay dispositions yu bëri yu ñu jël d'ailleurs sax yi ñu jëloon déjà la depuis fin années bi passé ndax xale yi ñu ngi leen di ñu ngi teg euh, benn dispositif de lavage de mains pour ñu raxas seen loxo suñuy dugg euh, am nañu ay masques am nañu gel donc tout le matériel bi ñu bi ñu laajoon bi ñu joxoon bi ñu jàppale woon et d'inspection d'académie avec les collectivités locales avec euh, les différents partenaires comme les parents d'élèves les associations des anciens élèves du lycée mais nous avons bagages yu bari ak rien que pour lutter contre Covid Nous avons imposé dinañ masque sur le plan pédagogique tamit Euh, ñi ngi ci ndax inscription yi ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi woy ba tey xale yooyu ñi ngi inscrire euh, lépp euh, yomb na ndax livre yaa ngi bibliothèque incha allah après dinañ distribuer commencé guñ ko nag waaw cours yi daal ñi ngi déroulé normalement parents d'élèves yi ñi ngi inscrire seen doom yi donc période bi nag day metti suñu ndax contentieux yëpp ñun laa ko mën a tuddee dañ koy jéem a ndax am na ñu ñu dàq ñu am ñu ñu ñu ñuy redoubler am ñu ñu war a def test de passage loolu yëpp ñu ngi koy gérer daal parents d'élèves yaa ngi ñëw nag ñu ngi ñëw ñu ngi toppatoo seen jàngu doom ba tey Covid bi tax na lu ci bëri ci ci matériel yi ñu ngi koy jënd de ñu ngi ñu koy may aussi état bi jàppale nañu ci lu bëri ndax jox nañu ay lave-mains comme ni ma ko waxee sànq Euh, ay lave-mains ay saaboog yooyu yëpp am nañ ka xale yi kii xale yi mën a gérer bien euh, set gi Covid bi laaj